docteur Babacar Niang directeur Souma assistance ñu ngi lay nuyu. maa jërëjëf maa ngi lay sant docteur d'urgence mais surtout urgentiste et deuxièmement médecin aéronautique. d' accord docteur merci beaucoup gannaaw nag bañ la dalalee docteur ñu lay wax ne juróomi weer a ngi nii ba ñu amee cas zéro bi fii ci Sénégal tey ji lan lañ mën a jàpp ci évolution pandémie bi. mën a jàpp ci évolution bi mooy presque sant yàlla bu ñu gisee ay dëkk yu mel nu Europe yu mel nu Amérique euh, sonn ci feebar bi te mënuñ ci dara. Mhm. te mënuñ ci dara te yor nañu tous les moyens donc euh, je pense que euh, war nañu maandu euh, jéem a doylu euh, jéem a compter sur les compétences qu'on a pour essayer de de vivre avec le le microbe. vivre avec le microbe tey jii gis nañ ne changement stratégie am na. ci kuuru cinq mois yi. Euh, parce que euh, levé nañu état d'urgence euh, nit ñi am na neneen nuñ ko jàppee sax ba jàpp <laughs> gis nañ ci voilà gis ci bàyyeeku est-ce que loolu tamit amul lu mu kase ci dynamique gi ñu commencé woon ci gestion non non non du bàyyeeku déjà du bàyyeeku kooku benn politique la bu am déjà mhm. sur les épidémies bu ay feebar bas amee ci dëkk mhm. yaa li ñuy def mooy jël ñëpp séparer leen dëkkaloo ñi fii ñii duñu dem ci ñii mhm. mais léegi gis nga Dakar ni mu mel kenn mënul séparer Dakar. Mm-hmm. ah benn bopp la. donc boobu moo moo tax mënuñ ko def et buñ ko defee tamit gis nga économiquement du ñu dem. Mm-hmm. gouvernement bi confronté na si ñaari problème bi mu tëjee jumaa yi nit ñi dañ commencé woon a jóg. Mm-hmm. xamuñu woon ndax day am ay bomb ndax day am ay ay xeex bon bi mu ko bàyyee ñoo ñu commencé julli borom oto yi toog tam amatuñu lu ñu lekk. ñu génn ci mbedd bi commencé defa ay événement kon ñooñu ñëpp nag euh, bi sunu président bi commencé jouer Lido dafa jàll ci beneen état bu gën a rëy bu may oowee euh, xaw ma dans le casino la am na beneen jeu bu ñuy oowee xaw ma euh, pas loto mais mu gën a fort loto <laughs> boo xam ne da ngay gagné li ñuy oowee jackpot jackpot mooy boo dugalee ñaata dërëm uh-huh. nga gagné cent un milliard. d'accord mooy nga gagné vraiment li gën a rëy ci gagné bi. d'accord defe naa président mën nañu ko féliciter côté boobu gagné na kay jackpot bu bu rëy. bi euh, borom jumaa yi bëggee jóg yàq dëkk bi mu ne leen dem leen julli bu mu leen dem leen julli ñoom ñoo réglé seen problème am na jumaa yoo xam ne ba léegi julli guñu bi ñu wala bi ñuy julli préparé nañ ñu wutal seen bopp ay ay thermoflash mhm. ñoom ñoo ne ñiy julli see de leen andi seen basang parce que basang yi fa nekkoon nga xam ne ñëpp dañ ciy dëgg euh, dañ ko dindi. Mhm. nan la julli si andi sa basang. Mhm. ku mën a julli ci bitti nga julli ci bitti bu ñëpp dugg ci biir. bon xam nga de foofu déjà il a une prise en charge euh, presque de la population qui s'est impliquée mhm. bon bi ñu ne aussi car rapide yi daw leen euh, def leen leen neex au début ñun ñi commencé nañ sol seen masque di ci jéem a bon bi tabaski bi ñëwee nag affaire yi ken a jaxasoo mhm. euh, kenn mënu ci dara a un engouement social boo xamee ne a en même temps nag dafa arrangé politique bi ñuy wax immunité collective. mooy lan immunité collective mooy bu ñu demee ba dafa ñu rob vaccination. Mm-hmm. mooy yéenay vacciner seen bopp. kenn kii ko am bu ñëwee toogaax man damay jox mi virus bi bu ma yàlla dimbalee ma am ay moyens de défense sama yaram dëgër virus boobu du ma mënal dara. Mm-hmm. te bu xasee bi dugg ci man daf may may lu ñuy wax immunité mooy lu mel lu vaccin lay bàyyi ci man boo xam ne bu virus bi ñëwee bu ñëwaatee du mën a dugg ci man. mooy comme vaccination rek mooy ni ñu fi dindee polio ku vacciner polio boo rombee ku am polio du la jàpp. Mhm. ku a contacter polio tamit ku am polio du la jàpp loolu nag bu yàggee ci dëkk bi day dem ba ñi ñi ñi mas a contacter gën a bari. Mhm. ñi mas a am contact feebar bu ñu nag microbe bi du tam fu mu dem mais loolu nag balaa nga ci àgg nag dafa am benn bémol ak benn benn. lu ñu lu lu lu ci am lu ci fii c'est que entre ñi feebar feebar yu metti mhm. ñi nga amoon ay feebaru diabète ñi amoon feebaru asthme ñi amoon feebaru tension mhm. ñooñu ñoom dañuy euh, dañ seen seen man may day gën a wàññeeku. Mhm. te malheureusement sax yàlla def ñoom ñoo jëkk ñoom ñooy jëkk gaañu voilà moom nga dégg récemment ci personalité yi wax ne gaañu nañu euh, ci hôpitaux yi ñi naa c'est parce que moon mënuñu dem Europe moo tax ñu gaañu mais même loolu dëgg c'est que ñoom tamit li ñu war a xam doon wax xaw stigmatisation ragal feebar bi da nga ruus sa waa kër ñu ne xam ne dafa da nga feebar ruusaay mhm. boobu moo ba ñu ñu bari duñu gaaw a jóg surtout ci personnalité personnalité bu ñu jógee euh, seen problème yemul ci feebar bi mhm. yemul ci ñoom mu yem ci société bi ñu yor boo demee benn société bu mag ñu ne la chef ba feebar na ñi fay liggéeyam ñëpp dañuy am problème. Mm-hmm. société bi du marché waat ni mu doon marché ñi doon jënd ci yow du ñu jënd ci mm-hmm. donc moo tax aussi euh, euh, li may wax le le décès des grands patrons. Euh, dafa yokk seen seen seen image. Mm-hmm. seen grandeur. parce que pour sauver leur société ils se sont sacrifiés et on peut dire que c'est des martir d'accord docteur tout à l'heure en français nga am li nga xam ne développé nga ko jëm ci test yi nga ne dafa am euh, boo mayul euh, benn agenda wala lobby bi nga xam ne da koy caché wala bu caché wu derrière ñu bëggoon nga expliquer ñu lan nga doon wax foofu. non loolu li ma wax mooy euh, feebar bi depuis bi mu ñëwee ci dëkk bi. Mhm. dafa am plan bu rëy bu am ci feebar bi. Mhm. feebar bi d'abord xam nañu fi mu jógee. dëgg la. ah ñu en Chine la jëkk a démarré mais foofu tamit benn laboratoire français bu ñu defoon foofu boo xam ne da doon jàng da doon jéem a étudier microbe mm-hmm. est ce que ñoom ñoo ko bàyyi mu génn est ce que daf leen rëcc est ce que c' est un plan politique de combat parce que feebar bi tax na ba Chine gën na gagné ay points yu bari xam nga y concurrence mondiale. Mm-hmm. ba ñuy wax ban dëkk moo jiitu ban mooy dëkk moo gën a fort. Mm-hmm. bon actuellement waxoon nañu États-Unis Europe topp commencé ñëw di leen. <laughs> di leen di leen di jéem a ut nu a placé woo. bon ba un moment nañu entre Amérique sax ak Chine kan moo jiitu économiquement mais feebar bi tax na presque ba Chine gañe euh, gañe yeneen pays yëpp. Mm-hmm. parce que Chine bi mu leen di euh, yombal seen liggéey di def usines yu Europe yëpp wala Amérique yëpp presque États-Unis lañ leen di defaree. Mm-hmm. bi ñuy def état boobu tamit Chine def leen posé woon ay conditions. Mhm. boo ñëwee def sa usine en Chine am na côté bu ma ciy moom boo ciy moom. Mhm. bi yàlla defee defar bi feebar bi bari Chine ñi fa nekkoon en expatrié yëpp dañu daw ñibbisi. Mhm. Hmm? ce qui fait que part boobu ñu yoroon ci société bi Chine daf ko jëndaat facilement. Chine actuellement mu ngi détenir ay grandes marques yoo xam ne ay européennes lañu wala mondial yoo xam ne moom moo ko moo ko moom léegi. <laughs> donc moo tax dégg ngeen presque tension bi am actuellement entre Chine okay, et, et l'Amérique mhm. euh, mu mel ni tamit test yi benn laboratoire rek moo koy exercer yow mu am noo ko jàngate <laughs> kooku du man ma maa ko jëkk euh, dénoncé de yàgg na ci dëkk bi uh-huh. bi ñu ne benn laboratoire rek boo xam ne ñi fay liggéey ñu ngi jàngee Dantec centre centre universitaire bu mhm. Dantec mhm. moo formé la plupart des gens de de Pasteur donc te ñu ne ñu ne Dantec mënul tester Pasteur mu war a tester te Pasteur xam ngeen ne dañuy wax ne fondation sénégalaise la mais fi mu soxee ko Europe la. Mm-hmm. ay euh, ay puissance yu rëy ko yor te dafa nekk dans le monde entier. Mm-hmm. bi mu jógee foofu tamit yemul Dakar dafa jël presque tous les pays de la France Afrique de ba Madagascar. mais mm-hmm. moom rek mooy analyser tous les Africains. bon un moment sax il a fallu qu'une tension yéeg ba ñu commencé dugal euh, professeur Mbou ci yor IRSF te ñu màcc te màcc ci affaire bactérologie mm-hmm. ak virologie mm-hmm. bon bi ko dugalee tamit joxuñ ko yëpp dañ ne ko Thiès ngay yem <laughs> Sénégal yëpp ñu ne ko Thiès ngay yem yow mi nekk Sénégalais ah war a jël en charge say say mbokk. Mm-hmm. ñu ne la non non yow doo jël en charge kooku sunu président moo ko décidé. kon daal yow daa am lu ci laxasu. am na ku jóge ci kawam ku ko ëpp doole ku ko wañ loxo bi bàyyi ko mu def loolu. te léegi wax naa leen loo pant boobu ñuy dugal sa bakken. Mhm. wala sa biir gémmañ di ko xoos. Mhm. dina dina gis microbe bi. mais day jëlaale benn euh, li ñuy woowee ADN. moo xam ne moo yor vraiment li nekk ci nit yëpp. Mhm. Hmm? ci maniyu bi sax la lañ ko gën a xamee maniyu nit. wala ovaire jigéen. Euh, buñ ko ci xoolee dañoo xool ADN bi bi tax. Euh, yàlla yàlla sàkk la donc loolu na ku ko yor euh, information boobu sur une population de la moitié du monde euh, doole bu bu rëy nga ci am xam ngeen ne sax bi passé rek Microsoft rek bi yor xaw xawma Facebook influence bi mu am ci élection aux États-Unis ci ci yor ay données rek ay données rek yoo xam ne sax ci ay nit la léegi nag ku yor ay données yu mel noonu ci ay maladie ci dëkk dëkk yu bari kooku gis nga di nga mën a créer sa vaccin di nga mën a créer sa médicament di nga mën a euh, yor dëkk bi yëpp ñu tax toppa si ginnaaw di la di la topp parce que yaay gën a yaa leen di ëpp doole. Euh, professeur bëggoon nañ gën a yaatal mais ñu dellu si ci li nga xam ne mooy prise en charge bi tey gis nañ ne cas yi dafa gën a bëri euh, rawatina gannaaw tabaski bi ndax Sénégal am na jumtuwaay yi nga xam ne dina mën a accueillir tout ce beau monde. jumtuwaay yi mosul am mosul am Sénégal yàgg nañu xàccoo plateau bi ñu ne hôpitaux yi dara nekku fa dara dara nekku fa léegi nag bu ñu xaaree bi feebar bi ñëw ñu jël euh, ni ko France yi di wax poudre jël benn poudre suuy ko ci kaw pour mu rafet bon euh, def nañ ko ne wala maquillé bon du wolof moom lañ jéem a def ne kaay leen ñu dolli leen ay matériel bon gis ngeen erreur bi ci amoon sax à à Ziguinchor. Mhm. dañ fa yóbbu matériel boo xam ne dafa bees mais ndekete matériel bu yàqu la. bon heureusement ñi ñuy jàppale les grandes puissances même la Chine ci biir pour continuer wax ne que Chine dafa bëgg a nekk grande puissance moom moo fi gaare benn avion cargo bu am matériel boo xam ne euh, am na médecin yoo xam ne mosuñ ko gis. Mhm. bon loolu tamit même boo demee ba bëgg dimbale dimbale dëkkate nit bi amul compétence bi. bon du tax mu génn ci bon mais nag ngaa euh, ñu ma nag benn corps médical ñoom ñëpp ñu ngi def seen liggéey li ci gën a rafet mooy feebar bu ragal loo ni benn médecin reculé wul te taxul ne ñoom sax dañu am ci feebar bi te taxul ñu ngi ñu ngi donc moo tax ma ne quand ñu ngi rafetlu tous le les soignants def nañu seen devoir mhm. moyens yu ndaw yi ñu am utiliser nañ ko liñ ñu leen jàppale ñu ngi koy utiliser bon résultat bari nag mu nee na la xu États-Unis Amérique Chine euh, nekk troisième puissance wala première puissance am problème. Mhm. bu Sénégal tolloo fii euh, maa ngi leen di njukkal euh, di leen sargal di wax ne vraiment jàmbaar lañu nañu continuer ñun ñëpp bu nekk def li nga mën ñun privé yi dañu waxoon ne bokkuñ ci mais bu suñu malaa toogee suñu kanam di di wàllu. Euh, il faut ñu jàppale leen foofu la ñu toll man service privé la amoon naa benn côté bu ñuy woowee cafétéria mu nekkoon lekkukaay mais dama ko modifié ba mu doon ay chambre bon euh, maa ngi ciy jàpp maa ngi génne yeneen médecins yi tamit defe naa léegi presque service bu nekk de toute façon mënatuñu rëcc bu ñu demee ba population bi toll vingt cinq pour cent d' infection. Mhm. Euh, foo tourné boo jëlee juróomi nit. am na kenn koo xam ne am na ko kooku nag boo ne yow doo faj feebar bi mhm. sa sa serment d'Hippocrate bi nga waxoon bi ngay nekk docteur presque da koy da nga koy trahir wàcc voilà trahir wàcc docteur euh, tey jii mu mel ni nguur gi dafa gis enjeu bi euh, ba tax na sax dafa corser la lutte lañ ko mën a wax ndax loolu mën na am lu mu soppi corse bi moo suñu arrangé loolu moo ñu gën a moo ñu moo ñu gën a sonnal ah. corse bi moom lañ jikkoon a def bi ñuy jël seen nit seen kër di leen forcer euh, donc mu ma comparé leen ko wax li ñuy wax euh, en Allemagne yi Allemagne bi ñuy jàpp juif yi euh, am na police bu ñu créé woon. Mhm. buy dem ci kër yi di marqué kër yi di génne nit ñi di leen di leen yóbbu di leen dugal dans des camps Gestapo Gestapo. Mhm. dañ defoon benn action bu ñu rox Gestapo. Mhm. mais loolu moo tax sa population bi ba léegi nangu la adhéré ci ci maladie bi. ñu jóge ci loolu def couvre-feu jël ay liif di dóor ay nit ñi pour ñu faju booy door nit lii fa mu gaañu nga di ko yóbbuwaat hôpital te yow sa lii lii tax nga di ko nga ko <laughs> xaw ma dóor <laughs> mooy pour mu pour wér gu yaram. mu aar boppam boo xam nga la. léegi ñu dolli ci un moment ñu ne masques yi bañ a masques yi six mille francs huit mille francs ngay jàppante ay policier di doorante deuxième erreur bi ci gën a rëy mooy bu ngeen solulee masque ñu dugal leen ci benn pañe li ñuy wax panier de mooy kamion wu. Mhm, policier yooyu te ñu war ko panier waaw. bu ñu jëlee dix personnes yu solul masque dugal leen ci panier loolu luñ ci am. <laughs> dajal yokk feebar bi <laughs> donc moo tax ma ne gouvernement bi na jéem a gën a naxanteex nit ñi jéem a yokk communication bi gën a gën a jege nit ñi jéem xool dans chaque village dans chaque commune ñi fa nekkoon di faj. jàppale leen ba ñu mën a gën a dugg ci dëkk bi. et justement sénégalais yi ñu bëri gëmuñu ne feebar bi am na lan nga am. pour wax la ah, ah, non loolu loolu mënuñ ko wax parce que tey euh, ñaati nit ñoo joy ci euh, ci personnalité yi gaañu ah, ñaati sëriñ ah ñoo ñoo am problème ci feebar bi. a euh, sëriñu Tivaouane bi ba récemment wax na gouvernement bi jóg leen ci feebar bi. te wax leen ñu dëgg. Hmm. ñëw leen bon muy noonu. donc ku dëkk Senghor euh, Sénégal euh, bëkk bokk fi mën a wax ne mosoo dégg feebar bi léegi nag xam na ñun en France on appelle ça le xam nga ne lii moo lay rey mais euh, da nga koy nu mu tudd da nga koy bañ a faale. <laughs> kaw Dakar ñu gis ne tamit dafa jéggi day lool parce que chaque jour boo gisee nombre bi a ci gën a bëri nan lañ mën a def en tant que spécialiste pour ñoo mën a maîtriser. Euh, mooy continuer continuer vaccination collective bi immuni immunisation collective bi parce que Dakar euh, mooy boppu Sénégal mënuñ ko xar mënuñ ko xaaj mënuñ ko xar mënuñ ko xaaj d'accord mm. bu demee ba toll foo xam ne àgg na chiffre bi euh, mbëkkanteex moom moo ci des mbëkkanteex moom dem au-dessus des des mesures barrières parce que ñi ñuy wax toog leen seen kër boo toogee sa kër a ngay dépasser mesure barrière il faut nga xam nooy lekkee sa doom mm-hmm. nooy toogeex moom euh, nooy demee si sa euh, sa toilette même sax loolu am da ci am solo mm-hmm. donc euh, dépassé na ay mesures barrières mooy utaat luñ ci gën a dolli ah, mm-hmm. luñ ci gën a dolli ba gën a ba gën a mën a dem ba mën a immunisation daal collective boobu mooy suñu yaakaar moom moo ñu dese ah, amuñu ay garab amuñu ay vaccin sunu respirateur yi doyul hôpital Dembala waxtaan professeur bi yor foofu réanimation douze places la am euh, du multiplié na ko ba mu toll trente six mais taxul trente mhm. man trois places la amoon trois places yi fees na bu yàgg maa ngi jël ay maa ngi waxtaan ak ay technicien pour ñu defal may conteneur ma teg ko fii mën a mën a continuer dimbale ay nit. dimbale ay nit docteur ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaw maa ngi lay jàllale Elisabeth. xam nañ ne xat na <laughs> te liggéey bi bëri na mais teewul ah. <laughs> jël nga sa temps waxtaan ak ah. ñun. non yéen tamit ngeen bokk parce que yéen ñuy jàppale ci feebar lu population bi gën a xam gën a gën a si sunu li ñuy def. Mhm. ñu gën a mën a dem ci kanam. Mhm. d' accord ngeen def yéen tamit yéen a ngi contribué yàlla leen yàlla fay. Euh, yàlla yokk seen liggéey. amiin feebar bi gën dellu ginnaaw. amiin amiin jërëjëf Elisabeth. merci